tey jii ni ngeen ko xamee woote naa fi benn ndaje ak ñi nga xam ni ñoo yor projet BRT euh, mais également ak ñi nga xam ni ay acteurs yoo xam ni la bu liggéey bi tàmbalee dinañ ci am rôle bu am solo bu ñuy joué li sabab ndaje bi nag mooy que ñu waxtaan ci modalité mise en circulation progressive du BRT euh, boo gisee ñu def loolu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 sensibilisation bi tàmbali na mais dina continuer ba képp ku nga xam ni war nga am les bonnes pratique nga xam ko mais surtout nga adopté ko Sénégal suñu Sénégal la infrastructure yi ñoo ko moom kon dañ ko war a sàmm ca sàmm ko mooy déjà tàmbali ci am attitude yu baax ci jaar fi nga war a jaar def li nga war a def fi nga xam ni waroo fa dugg waroo fa taxaw également nga bañ fa dugg nga bañ fa taxaw kon daal ci gàttal ñi ngi ñaan sénégalais yëpp sénégalaises yëpp ñu dimbali ñu ba ñu am BRT bu nga xam ni BRT zéro incident lay doon incha allah tey gëm naa ni sénégalais dañu ci jàppale. dama bëggoon tàmbali pour euh, gërëm monsieur le gouverneur mi présider tey réunion de sécurité. Euh, réunion boobu ñu ngi koy def nag parce que dañu war a tàmbali bu neexee yàlla euh, exploitation bi sénégalais yëpp di xaar may profito ci occasion bi pour euh, remercier waat leen ci gunge bi ñu gungee ndax gis nañ ni projet bu toll ni yombul waaye sénégalais yi ñoo ko teen seen bopp. ci biir loolu réunion de sécurité bi dañu jëm ci mercredi bii di ñëw. Euh, ouverture exploitation bi nga xam ne euh, le ministre des transports moo koy présider euh, fajar nag lay nekk pour wane ne transport bi nga xam ne nii moom la ñuy dugal Dakar BRT bi day teel a xëy day teel a xëy àndandoog sénégalais yi ci seen ay soxla dem ak dikk guddee tamit pour ñi nga xam ne dañu bëgg delluwaat seen kër exploitation bi ñu ngi koy xaar Euh, ci 6 heures du matin ba 21 heures dañuy tàmbali nag tàmbali bi mooy euh, station yëpp euh, du ko exploité xam ngeen ne BRT bi ñaar fukki station ak ñett la am na liggéey boo xam ne dañ ko war a eggale ci yenn station yi waaye li ci ëpp dayoo muy fukki station ak ñeent te nga xam ne téeméer boo jël ci ay passager ci li ñu xayma li ñu prévoir Euh, mooy téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi euh, seen soxla dinañ ko mën a matale mooy euh, fukki station yoo fukki station ak ñeent yooyu moom la ñuy tijji jox ko exploitant BRT bi mu tàmbali jël passager yi ci biir loolu ñuy woo sénégalais yëpp ñu continuer di ñu gunge li ci ëpp solo mooy ñun xam nañ ne seen dem ak dikk dina yomb ci ay bus yoo xam ne dañ ko climatiser am wifi à bord ak ay clé USB euh, mu leer leen tamit ne temps bi nga xam ne moom lañ leen di jox pour dem préfecture ak géejawaay benn minute du ci yokk ndax BRT bi dañ koo xalal yoonam ñu jàppale ñu ci comportement bi ak euh, ci réunion sécurité bi nga xam ne moo ñu indi fii pour ñu bañ a am benn accident ak oto wala wala piéton tarif bi lu ñëpp di xaar la mais njëg li Euh, lu yomb la euh, tarif yi ñu ngi ko fixé ci euh, quatre cent francs ak cinq cent francs ku am téeméer dina mën a jóge géejawaay dem ba Petersen boo xalaatee ne am na tey jii ñoo xam ne ñu ngi fay deux mille francs ba trois mille francs pour def trajet boobu ngeen xam ne bi ñuy defar projet bi moo ñaalee nañ ci bu baax sénégalais yi mun cee jot Euh, ndax loolu mooy yokk tamit euh, koom-koom wàññi euh, tooke yi nga xam ne oto yi ñu ngi koy def ci biir àllam bi liñ ci war a dolli tamit mooy yemuñu foofu dañu fexe ba ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw téeméer boo jël fukk yi ak juróomi passager yi état du Sénégal dina jël ci gafagaam am lu mu leen jàppale ñooñu ci condition yi nga xam ne ministère yi ko yor ñoom ñooñu war a jox chartes yi ñu war a doxee euh, dinañ gis ne euh, tarif bi ma leen jox léegi ñoom genn wàll gi la ñuy fay 16 euh, pour cent usagers yi lay nekk ñoom dinañ mën a mën a fay 200 francs ba 250 waaye tarif bi nga xam ne mooy tarif officiel bi mooy 400 ak 500 francs 400 pour def benn zone 500 francs pour def couloir bi yëpp.